asrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra qadimihi dawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci turu Cheikh Ahmadou Mbacké mi fi nekkal Serigne Souhaïbou maa ngi nuyu bokk yépp di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp ci weer wu tedd wii di jiital ci nuyoo bi di ko jaarale ci sëriñ Bachiru mi ko fi nekkal ak njabootam gii toog sunu sëriñ seex Sidil Muxtaar xalifatu Seyxil Xadim yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko te mottali ay naalam yëpp ci Touba ak ci yoonu Murit. di jottali ay nuyoo yu jóge ci sëriñ bi jëm ci mboolem ñi mu bokkal seexul xadim ci tënk rek mooy képp ku jóge ci ku bàyyi koo ci seex Muhammadul Moustapha ba ci seex Muhammadul Murtada wala seex soxna Faati Ja ba ci soxna may Maymunatu Soxra ak mboolem ku askanoo ci maam Balla Aysa ak maam Mor Anta Sali ak askanoo ma aram yépp sax ak bokki mbusoo bi yépp ak doomi soxna yépp ak kilifa yi diine yépp ak bokki taalibe yëpp fu ñu mën a ne daayira yeeg biir réew mi ak bitim réew Ablaye may sëriñ baa ngi boole ak cantam dugal ko ci cant gi mu cant ki fi nekkal sëriñ tubaa wisaare ko ci mboole bokk yëpp ak taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew mu mel ne waxtu wi xat na te xam naa sama ñaari mbokk ngi fi yoo xam ne ñi ngi xool seen montar muy sëñ Modou Lo ak sëñ Modou Mahfous ndax waxtu dog bi dafa jege ba tax na duma mën a xaabaabal ci wax ji <laughs> waaye comme sama rakk wax na ba noppi dama woon mu wax ndax wala fii dañuy wax ne waxambaandew giléem ñeme biti tëdd biti ñemewul biti tëdd biti kon nag faaw ñu jim ko ñeme te gunge àgg baaxu ci te koo fi gis muy wax rek ay rakk ko dax ka wax ay doom ma ko dax ka wax dañoo joxante ay cër rek kon nag nañuy jege si tey mos ci liggéey bi ndax ñu tàmm ko loolu moo tax ma ne ko ñëwal ne ci sama wet léeg sama tukki bàyyee la yëf nga doxal ko ndax ñoo ci yem rek tam nga ci cër sëriñ Seex nag nun noo ngi feddali suñu jaayante ak sëriñ Tuubaa ci yow nun ñu nga bokkal suñu son bi ni ñu la ko waxee woon rek du la jënde dara duñu la booleeg dara foo xool fa lañ xool sëñ Touba rek lañ am te sëriñ Souhaïbou mooy sunu bunt ci sëriñ Touba te yow lañ koy xoolee te yërëm nga nu yiir nga nu aar nga nu kon nag ñu ngi lay bàyyi xel te di déglu maa ngi koy wax ci tur sëriñ Abdoul Ahad mii ba ci sëriñ Abdoul Khadir a doon ne na xam ne daal foo foo jublu rek xamal ne sa njaboot gépp nga fi jublu jëlu jëlul sax nga naan leen jublu leen fi jublu foofa rek boo lu bati ko gis na fa ñoo ngi koy seerloo it suñu bokk yi ñu bokkal sëriñ yëpp te loolu mooy dëgg ci noonu sama ba kilifa yi diini yi nga xam ne ci yeneen turux lañ jóge ñëw fii bala maa jàll maa ngi leen sant bu baax mënuma ku ne ma tudd la waaye bis bi seen bisi ñoo ko bokk gis nañ leen ñu ngi leen sant bu baax di ñëw hmm? Hmm? di ñëw ci ñi nga xam ne kilifa gi réew mi da leen fee yebal sëriñ Baara wax na ko xam naa damay mottali rek waaye sori na ci mel ne président Macky la dafay yebal Pape juuf moom gàttal na waxam lool ndax séeréer la boo xam ne di yàkkamte dog jot xam naa ko ci bëgg cere lool <laughs> ak Arouna Coumba Ndofine mii nga xam ne taalibe li ci kër gi ak Xaadim Diouf mii nga xam Xaadim Diop mii nga xam ne nag Serigne Bassirou moo jur waajuram bu jigéen moom barki dem biñ ma woo wax ma ne day bokk ci délégation bi laa leen xanaa daa war a jiitu si nekk leen ci kër gi di leen dalal waaye moom fii la bokk. moo tax bi sëriñ Cheikh ñëwee moom mu bëgg a gedd ab seesam jox ko ndax moom fii la war a toog ci wetu sëriñ Cheikh ci kër gi la bokk. ñu ngi leen di yóbbante bu baax nag ngeen xam ne président na xam ne xaadim ku rëy la ci nun ku nu ñor la ndax ak bokk dafa sax ci xol te yàllaa ko bind. te fii mu ne woon it doyu luñ ci moom da koo soxla rek ñu jox ko ko waaye tey lañ gën a soxla kon nag ñu ngi ko koy dénk bu baax ci turu kilifa yëpp. mu teg ca Ndonga Ndiaye mi nga xam ne buñ ko présenté rek fi ñuy yem mooy la ci président Macky Sall waaye moom it weesu na loolu ci noonu ndax sëñ dindi mii sëñ dindi si la sëñ Madiba moo jur ndeyam kon ko kenn mënu ko génn ci yoon wi doomu yoon wi la kon nag délégation bi ak Mariama Sarr mi nga xam ne taalibe la ci kër gi moom it borom këram a ngi toog hmm? Hmm? ci kon ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la président Macky yebal ñu ànd ak préfet bi ak sous préfet ak gouverneur ak mboolem chef de service ci région bi ngir ñu jëmmal ko fi ñu ngi koy xamal ne mboolem li nga xam ne sëriñ Abo mi nga xam ne moom laa jiitaloon ci organisation bi ak i rakkam sëriñ Baara waroon a ànd ak ñoom ca CRD ba te am ngant wutuma ci. wax nañ ma rendre nañ ma compte ne mboolem lañ fa san lañ fa waxoon ne bëgg nañ ko la leen ci waroon lañ ci waroon def lépp def nañ ko niñ ko niñ ko war a defee lu ci amut wala lu ci matul rek xëy na ci jamono jële waaye def nañ ci lañ ci wan lépp ba ci wàllu électricité maa ngi ciy beral loxo Aliou Nguy Ndiaye jotal naa ko sama bopp ñaanoon ko ci kër njabootu Sëñ Sohaybu bu gépp fu ci ne ñu jotal fa courant bi ba mu doy defee na ko na ma ko waxe woon te sëñ Abdul Ahad sunu sëriñ ba dadaa wax ne du ma sant ku ma defulu dara waaye bokk na ci ngorit lu la waaye defal nga sant ko kon nag ku mel noonu bu ko ma ki amee mu taxaw taxawaay bu rafet mi danaa ko xamal ne ko ku mat a jàppa ngoog ci sunu wet daal nun rafetal na sëriñ bi it mi ngi jottali ak cantam bu baax ci taalibeem bi di Arouna Coumba Ndoffène yàgg naa doxal bi gi dikki depuis Amérique am na bi sëriñ bi yónni ma fa ci ay sas ay liggéey doxaloon na ca pas-pas lool loolu lépp jiitu na taxawaayam bi hmm. président Macky itam ñu ngi koy xamal ne ndaw yi mu yónni ak yi soxnaam yónni yëpp egsi na ñu ngi sant bu baax gis nañ lépp maagal gi daal li mu ci war a def def na ko ñu ngi koy sant bu baax man nag foofu dafa am tuuti rek lu mu bëgg mu leer mooy nun bu nu goree du nu am perte du nu am carte Sëñ Tuubaa rek mooy doon suñu perte mooy doon sunu kart ndax li nu mën a lut suñu bopp moo nu ko defal moo nu booleeg tiraanga joo xam ne du dañ mukk ba ke la koy fekk kenn ku ne ci nun boo tëju woon nit ñi di la fëgg ngir yëkkati seen alal ju ñoo xam dañ ko ñaq ba moom ko bëgg la koo jox booleeg di jooy kala defal loolu waroo ko yemaleeg dara kon nag nun ku bëgg a jot suñ suñ suñ xol bëgg suñ suñ njaboot gi jàppale rek jàppal Sëñ Tuubaa carte bu gën a waa gaaw waa ngo jàppal dëkkan bi jàppal Sëñ Tuubaa rek jëkkalante gépp ak wut nit ñeeg lépp wutal Sëñ Tuubaa rek moo gën a gaaw loolu nag moom mi fi toog ak ki fi jóge ak ñeneen ñi ci def seen xel ñëpp a bokk wax ji wutib sëriñ jëru ko nañ wut Sëñ Tuubaa rek ba am ko nit ñoom defuñu ku nekk fa nga teg sañ Tuubaa rek xam nañ ko foo teg Sëñ Tuubaa rek nit ñi teg la fa président Ablaye Wade yebal na fi ma dikkee mu ànd ak délégation bu rëy ñu ngi koy sant di fàttaliku bu baax a baax ay jëfam yu rafet ci yoon wi ak ci kilifa yi diini yi ak ci réew mi Pape Diop bi ñëw na fi ànd ak délégation Cheikh Tidiane Gadio it yable na fi Idriss Idriss Seck it yabal na fi bàcc Gajaga ak mboolem délégation yi ci des Abi mbay it ñëw na fi ñi ci des danaa wax sëñ Baara mu ànd ak sëñ Abo ñu def ab jataay leeral mboolem ñi fi teew ndax jataay bi dafa xat. buñ ko ci dugalee du fi xaj waaye ñu yëg na daal ñoo yemali mukk ku fi ñëw ak ku fi ñëwul ndax amuñu lul sëñ Sohaybu bu ku nu jàppal bis bi rek ñu yëg ko waaye nag ñu ngi rafetlu seen teewaay ak taxawaay bi bu baax dara desu ci sëriñ tubaa nag yàlla rek moo na ko may mën a fayal yàlla na ko fayal yàlla yàlla na ci wuutu bindeef yëpp ndax fam taxaw di ñaan li ko Cheikh Abdoul Ahad daa wax ne ba muy ñaan kenn du ko taxaw naan amin néewu fa waaye ba mu taxaw taxawee di ñaan war a àggale ab liggéey ba war a andib sëri cam bu ko neexoon ñaaneel murid yi képp bu neexoon ñaaneel jullit yi képp waaye daa fa taxaw wax ne irham jamii al wara yaa malikal mulki yaa man jallaan qawadin irham jamii al wara yaa haadiyan rada kooku kon bu ko yàlla dee déglu ci bindee fi kenn dem sa wara Tuubaa gii nag dafa wax ne ñaari pàkk yi yàlla gën a bëgg muy makkatal mukarrama ak bandidatul munawwara Tuubaa mooy ñetteel bi te da koo jaay mu jënd ko ba mu jar ay kilifa jóg nañ bëgg a xam barab bi bëgg koo moom waaye dañ leen a mënuñu koo gis sëriñ bay liggéey ba suñu borom jox ko ko mu digg ba ci mbéb gii taxaw di hakasa barab baa ngi daana wax ne itam sama borom li ma fi may li ma ci mën a wax te sëñ bi buy wax day foog day seet fa nit ña toll mu ak ñoom daana wax ne barab bi day dana dem ba diggante njaareem ak Touba dana mujj mel ne takkusaani ndar te booba mag ñëpp dañuy dàkkental barab bu neex ci takkusaani ndar dana neex ba raw takkusaani ndar te boobu nit ñi mënta dugg seen bopp ndax ay gaynde fi ne ak i bukki ndox amu fi kon nag la mu ñaan boroomam ci Touba mu defal ko ko nun mën nanoo waat nde yàgg yàgg dana ca teg suñu loxo sëriñ bi daa wax ne sëriñ bi lim ma ne dana am ma wax ba ma teg sama bët ba noppi li ñëwagut laa gën a tuutal xanaa kay ana ban gouvernement mooy am tawféex yi loola yembe ci loxoom la ñuy wax waaye Sëñ Tuubaa am li mu bëgg ci dëkk bi am na ko ba noppi. te loolu sëriñ bi dafa neexoon dafa dafa bokk ci sëriñ bi li ko yàlla may dafa neexoon ab gis te fàggul ci kanamam lépp te dara dara dara rëccu ko lépp bàyyi na ko xel. te li lay firnde sëriñ bi ko ko jox sa bopp te bële woo dara jëru ngay yëq tiit fii jëru ngay teet fa nga jëm mooy dafa am koo xam moom ca jolof am naar ne ko sëriñ bi man damaa ragal bàmmeel te xam naa ne bëgg naa nga jox ma lu bokk ci yow bu ma faatoo ñu boole koog man mu ne ko jëru ko dama bëgg nga xam ne yàlla may na ma malaayika yi malaayika mii nangu ruuy lim ko may mooy bu ñëpp faatoon doon senn saa ñu du leen dugaloon doo ci benn bàmmeel yi. yàlla may na ma ma mën a soppiku ba toll ni malaayika yooya na malaayika may def man na maa def noonu toll ni jullit murit yëpp nañ toll ma doon sëñ Tuubaa yu toll noona murit bu ne boo dikkee fekk bi si biir bàmmeel manangu la waaye nag loola la muy neex neex lam ca teg dane ku netti li sama wax jii nag nang ca teg li ma ci teg lu ma ta bàyyi xel mooy dane képp ku duggi sa bàmmeel fekkoo ma fa la tee nga fekk ma fa yaa ko def mbaa nga wax ko lu ma yëpp nañ bàyyi xel ne sëñ baa ngi leen di xoolal boppam te boolewu leen ak kenn ku ne boo xëyee ak boo yewoo sëñ baa nga ca géej ga ma xuja maram sala doonoon mbokkum sëñ Mor Anta Sali mu ko mu fonk sëñ Mor fonkoon sëñ bi ci ndaw teel a xam mbirum sëñ bi wala leen teg moom faatu fii ci Mbakol booba jamono ji naqari na kenn amut loo ko dajale ñu àgg ca bis ba ñu jekki-jekki ak jamono jóge ci àll ba ñëw ci kër gi boof fi njamale dagan naa lekk te amuñ luñ lekk ñu rey ko dëkk bépp rek lekk ci ba rek ñoom dañoo defe ne rek asaar la naka sëriñ bi ñibbisi jóge sànnoo si dox ba tollu seenub dëkk dëkk bu mas a dem ci armée yi lay jëkki ñëw ci nit ba mu demee siyaare bàmmeelam ba noppi dikk ci njaboot gi ñu di ko siyaaree ko wax mu ne leen ndax bisub ñaan nga ba ñamala ga ma leen ndax gis ngeen ko ci bisub ñaanam nga ñu door a xam ne ñamala gañ gisoon sëñ Tuubaa ko yeble kon kooku weesu na kay defar lu mel noonu weesu na defaru dëkkam lam programme ci dëkk bi dana am lam programme ci njabootam dana ko am képp koo xam ne ci Sëñ Tuubaa nga bokk tey góorgóorlu ci lam bëgg di moytu lam bañ ku la jàppale nga dem ku la jàppale woon nga dem yàlla na ci yàlla boole wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.